donc pour moo ñëw appuyer ko rek beneen bi mooy nga baal ma tuuti ma dugg ci thème 8 mars bi dafa am solo mhm. thème bi yaakaar naa ni covid 19 bi donte metti woon na si ñun lu metti la duñ ko fàtte ba ilaa yawmi diin mais am na aspect bu positif bu mu fi indi mën naa ni covid 19 bi moo engendré tey lan moo waral tey ñu indi thème bi parce que dañoo demoon ba ci moment période covid bi nit ñi dañ daan toog seen kër di liggéey ñu gis ni efficacement internet dafa amoon rôle bu important bu mu joué ni da toog sa kër entreprise mu ngi dox mu ngi avancé te via le digital. Mhm. donc mu doon loo xamante ni aspect bu am solo la ci ci doomu aadama donc nag lan moo tax tey thème bi ñu indi ko bien jigéen ñu ngi ciy dugg. Mhm. mais dugg bi ñu ci war a dugg. dafa des moo tax Amérique par exemple dañoo def ay perte yu am doole ndax ñàkk jël bi ñu euh, farataal jigéen ci biir euh, digital donc bu fekkee par exemple tey dañoo jël jigéen ñi ñoom. Euh, de mettre leen en jox leen les outils former leen comme elle a si bien dit ba ñu ba ñu mën a maîtriser le digital comme il se doit. Mm-hmm. donc perte yi nga xam ne ñun ñu ngi koy am dina mën a ñëw le e-commerce bi ngay wax. on l'a expérimenté nit ñi maîtriser nañ ko léegi soxlatuñ sax informati pour infor def information pour jàllale sa commerce donc pourquoi pas mënuñu dem oo fin fond des villages waxtaan seeg jigéen ñi parce que yaa ngi gis am na jigéen ñoo xam ne am nañ ay jafe-jafe pour fay seen facture ci ci seen téléphone te alors que loolu loolu boo gisee euh, par exemple Orange def ko et plus on avance plus ñuy gën a avancé muy li lépp loo xamante ni mu ngi daw ci ci àdduna bi ci digital bi lay jàpp pour nga mën ko jàllale mu gaaw parce que temps amatul. Mm-hmm. léegi nag d'où la nécessité di gën a ñaax jigéen ñi pour ñu gën ci nekk pour ñu gën ci di dox da ngay gis ko ubbi plateforme am plateforme dox ba si ak mu taxaw parce que dafa manqué euh, élément de base yi tax plateforme bi gën a dem ñu ñëwaat ci beneen aspect bi mooy la maîtrise des données internet. Mm-hmm. mu doon aspect boo xamante mu ngi ñu nuwir ñun jigéen di nuwir góor ñi sax léegi dafa doon benn bijou de chantage boo xamante ni nit ñi nu ñu koy utiliser dafa doy waar ñu mu doon loo xam ne nit ñi dañu ci war a bàyyi xel muy jigéen muy góor da ngay gis ku jël photo te mën naa ne dans internet rien n'est protégé rien du d'autant plus que sa téléphone ku nekk mun na ko laal réparateur bi mun na ko laal keneen mun na ko laal yow mi ci boppam léegi wax nga ko mun nga manipuler sa téléphone rek gis benn photo rëcc la mu dem te mënoo am maîtrise bi donc il faut ñu ñu woowaat jigéen ñi. Mhm. maîtrise ñu xam am maîtrise u digital bi ba pare. di ko utiliser à bon escient. voilà di ko utiliser pour liggéey. parce que loo gis rek dafa am njariñ.